auzu billahi mina alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokk yi fi teew yëpp yéen mbokki jullit yi yéen mbokki dëkkandoo yi yéen mbokki taalibe yi daa wax ne képp ku fi ñëw teew fi mi ngi lay nuy saw tur di la tafay saw sant mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp cant goo xam ne am na fu mu waaye amul fu mu yem li jiitu ci cant gi ak nuyoo gi mooy Serigne Laye mbay mi ngi fi teewal sëñ Modou mbay mi nga xam ne mooy xali Longhor nee na ñi nga xam ne teew nañ fi waa Ngalig teew nañ fi waa Daaru Ñeexeen teew nañ fi waa Bopp Silla teew nañ fi waa Njalba teew nañ fi waa Bayti teew nañ fi waa Njool teew nañ fi ak Njool de Longoor yëpp maase nañ teew fi ak tund wi Lappe ak kër Ngànna ak kër Balla ak Mewndu nee na ñëpp teew nañ ci dëkk bi nee na ñëpp mi ngi leen sant te di leen gërëm ngir jàpp gi nga xam ne am na yitte ñu jàppale ko ci ba jàppale ko ba nga xam ne lim soxla woon soxla sa faju na ba kawe njortam nee na mi ngi leen di ñaanal ci sëriñ Modou Rokhaya mi nga xam ne amul lu dul moom képp ku ne tànk ya nga jógee fa nga jógee ba egsi fi ba ba ngay dellu suñu borom yàlla defal la ko aw yiw ci barki sëñ Modou Rokhaya lépp loo xam ne am na ko ci bis bii nga xam ne nii dañ fee jàng ay alxuraan ak xasaayit ak salaatu ala nabi lépp loo xam ne nii suñu borom yàlla jox na ko di ko ci faye yàlla na ko bokk ak yéen ci barki sëñ Modou Rokhaya nee na sant na mbooloo mi fi daje ñëpp defe naa jigéen ñi ci bokk gi buñ tollee tuddee ci bokk gi tuddee sëñ Laay Mbay mi fi teewal sëñ Modou Mbay defe na sëkk ci jigéen ñi ci askan wi mbokk ci askan wi buñ tuddee soxna Faati Kumba yaakaar naa tudd na ñëpp defe naa tudd waaye nag defe naa ñi nga xam ne ay xarit lañ ay wëllëre lañ yu jàpp ci bis bi bëgg bis bi maanaam seex amee ko nu kawe njortam yaakaar naa xarit yi ak wëllëre yi buñ doon am ay président buñ nee seex seek wala ñool seek mii doy na sëkk yaakaar naa ci njiit loo xam ne mooy kóllëre ci kër gi seex nee nag képp koo xam ne nii ñëw nga fi jëf ji fi ñëf wóor na ko ne moom jëf ci du neen ndax lii muy liggéeyal di ko liggéeyal waa juróom yu tell ye waa juróom yu sell ye yu tedd ye yu baax ye yu amoonu jullit doon doomi soxna te daan ko jëfe di liggéey di di di di di di di dunde ak loo am yit ko Serigne Touba nee na wóor na ko ne lii mu leen di defa du neen te kon nag lu mu ci am dana ko bokk ak yéen bu soobee Serigne Touba nee na mi ngi nuyu ñëpp mi ngi sant ñëpp dafa guddi ba wax ji du mën a gudd léegi li ci dolli ko mooy daayira matul xadim bu Touba Darou Salaam Longor te Pape Sène jiite ko ak Soxna Joor Ndiaye sëriñ bi nee na ak daayira bii nga xam ne mooy nooru daara ni te sëñ Moustapha Jaxate jiite ko ak Soxna Xaddi Mbay sëriñ bi nee na ñëpp ñoo ndax defe naa ne xidmatul xadim ak nooru daara yi ni nee na moon na ñoo bokk fuñ jëm ñoo bokk fu ñu jëm kon nee na lim leen di ñaanal leen lay doon yéen ñëpp yàlla na ngeen yokk ba yëg ko ci barke Serigne Touba li ngeen bëgg a def ci bis bii bëgg koo def ca Serigne Cheikh mbay mii nee na lu ci waay fas ci xolam bu déwénee da nga ci def loo ci defoon da ci def lu ko nee na jëmmam ji teew yen ñëpp ku ci nekk na fas lim soxla te xool ko seen bàyyi Cheikh mbay buy jóg yéen ñëpp ngeen ngeen ngeen toog suuf te xool ko képp ku ko xool la nga fas. bu nekkee ci yow boo ko amul ci yow la waaye la nga loo loo fas ci moom boo ko gisee dana loolu soxla sa dana fay loolu nag kon war na noo sant yàlla ndax sun amee koo xam ne buñ ko xoole te langa nga koy xoole nekk sa biiru xol nga fas ko ca ca fase ko pëstëb la nga faju la nga soxla dana faju kon war na noo wax alhamdulilah sëriñ bi nan ko ñaanal mu yàgg fi téwér sëriñ bi nan ko ñaanal mu yàgg fi téwér ci barki sëriñ Touba sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal nu teewe ko na gën kenn bañ a manqué kenn ku nen da nga ci def ren bu déwénee yàlla na ci def fukkam ci barke Seexul Xadim nee na jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Serigne Cheikh Anta noo ngi lay nuyu ci turu sëriñ Cheikh mbay mii nga xam ne moo sabab bis bii nga xam ne da ko sabab ngir fas yéene mottali ab liggéeyam ci diggante ak ay juram and ko ak yow nga nangul ko ko ba saa bu ko jàppee yitte joo amoon ko bàyyi ñëw daje fi ak bindiif yeeg ak taalibe yëpp moom it mu bëgg di mottuli topp bu rafet bi waran ci digganteem ak waajuram wu tedd wee nga xam ne ku seeyeen ci alxuraan la ba kuñ ko sax kaang mi lañ lay wooye moo xam ne kooku koy liggéeyal la jëme ko ci alxuraan loolu moo tax nag ba saa bis bi ñëwee ku dib jàngkat ci tundu mbaakol yor daara dana la ko yëgal nga jàngal ko ay lim yu bari mandi ko fii mi ngi lay nag Serigne Mbacke Jaxate sab xarit dib xaritam nga xam ne njàng mépp moo ko daan jiite di la yëgalit rakkam ju faatu muy Serigne Boole Mbay ar bi démb lañ koy denc doonan jëmb joo bi ne bii ci noppalan la ku ko déggalan la lépp laay ci bis bi ci jëf ci wax lépp da ko daa yor ba bis bi jeex kon nag génn àdduna ar bi lañ ko jëwal boroomam mu ñëw fii nga toog na nga ko ñaanal ba liggéey bi nga xam ne da ko daa ak nun ñi ngi ci te yiw da nga ko fekk ba mu nekk ca bar bartax ba mu xam li mu liggéeyoon dem mu ni boole mbay mi ngi la koy fàttali Serigne Cheikh nag nee na bokk yi fi teew moom mi leen fi teeloo woowu leen ngir puukare woowu leen ngir adduna woote ngir xumbiin daa woote ngir bëgg ay bokkam ay dëkkam ñëpp ma si jëriñu ndax fii mu nekk wuutu wo waajuram wu tedd wa ñim fi bokkaleen dëkk ñu ànd nag waajuram di ko topp di sukkandiku ci moom ba noppi koo gis buumu ko wala gañ seqan ak moom ñëpp dañoo maase fette ko ci ñoom seen i njaboot nañu àndee ba nag wajuram wa moom mi la ñu àndee ñoom mu bëgg ñooñu nag nga dimbali leen te ñaanal leen ba sunu borom def ndax Cheikh day jàmbaar lu mu woote kenn dafa xaj ndax moo ko liggéey digganteem ak nit ñi kon nag nun man mi bi teewal bokk yi ak askan wi noo ngi lay seereel na nun ñu di bokkam day kilifaam day lanu moom ci moom jox na ko ba mu jeex tàkk te desilu ca dara kon nag yow mii sunu bunt ci Serigne Touba donc lay seeral ba nga ñaanal ko yàlla yàggal ko wéral ko te nag yaakaar naa ne seex ku yomb a ñaanal la ndax dafa am fondation tabax nag boo amee fondation bu dóor lu nekk daan ca mën a tegu ndax waajuram wu jigéen di soxna Jobbe Jaane yor na njëriñ sëñ gaawaan juróom-ñaari at maamam sëñ Ibra Mbay di ilimaan di xaali na fi gaawaan juróom-ñaari at kon fondation boobu nag ci la seex teg bëgg na koo nga tegal ko ci ay étage ndax fondation bi am na ba noppi te nag yaay lépp yaay maam Seex Antam démb yaay moom Seex Antam tey kon nag moom mi ngi nii di yeesal ak jaayanteem ci yow di fedd wëllëreem di fedd ak bokkam di fedd ak taalubeem di bëgg nga ñaanal ko te ñaanal mbooloo mi bis bii muy woote di ko liggéey de ko ngir waajuram wu tedd wa lañ ci jàng yàlla xuraan lépp na ko yàlla nangu ful ko jotal ko ñettaar mu di ko def ak jullit yëpp ak taalibe yëpp yow ci sa bopp it mi ngi lay sant sagal nga ko siggal nga ko kon nag mi ngi ñaan sunu boroom mi nga xam ne loo am mooma te nu mooma mu yàggale ci sunu kanam wéral sa yaram te loo fab Serigne Touba sama fable ko ba nga yóbbu ko fa nga Serigne Touba bëggee nga yàggee ñëw bi yàgg nu fay fekk théâtre fi déwén te kenn bañ a manqué te ku yokk ba yëg ko bis xat-xat yi dafa bari moo ne si war na wax lépp xaju kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa wa barakaatu bokki Daaru Salaam Longoor bokki tundu Mbakol wépp sëriñ bi nee na mi ngi jël ab nuyoo bu sell bu bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ni mu ko baaxoo di wax fu mbooloo mën a teew am ku ñu doyloo ca seen kanam teg ko fa mu toog ci kaw ñu toog ci suuf su ko xamee ak bu ko xamul rek sëriñ Touba tax te jamono ju ne ka fa nekkal sëñ Touba mooy sëñ Touba ci jamono jooja kon fu fi waay mën a dem rek ndawam ngay doon. kon ñu jàpp ne fii moo fi jëmmi sëriñ Touba Cheikh Mahmadul taxa te nee na wóor na ko na it bu mënoon a bu ko jot gi mayaloon boppam du fi yónnee moo fi ñëwal boppam kon jëmmam ji moo fi jëmee sëñ sëñ sëñ Touba Cheikh mun Muntaxa di ñaan yàlla yàggal ko lool te doole ak wéram nee na nuyoo boobu mi ngi koy jaarale ci sa loxo yow Baye Laay nga tegal ko ci loxol sëñ Modou mbay mi nga xam ne mooy borom dëkkub Longoor sëriñ bi nee na mu di ko xamal ne. daa am ndaw lu dox diggam mag moom waaye bu du toon loolu suba ngoon saa yeewoo dana ko gis waaye nag am na ko dox diggam mag moom te moo di Serigne Cheikh Anta mii di sëriñ Cheikh Thialla nee na nag moom mi ngi koy nuyu di nuyu mbooleem koo xam ne bis bi tax na laa jóge fa ne ñëw ci bis bi ak mboolem koo xam ne amoon na yéene ñëw ci bis bi te mënu cee ñëw ci bis bi nim ma ko waxee lay gudd. dafa wax ne bis bi bokk na ci ay jagleem te làmbutuwu ko lu ko wóor la ku saw fan naroon a gàtt nga jóg ñëw ci sax yàlla dana yokkaat sab dikk nee na loolu wóor na ko ne ci bis bii nee na nag bis bi dafa am yaar benn bi mooy ki tax ñu di ko def beneen bi mooy ki koy def ki tax ñu di ko def moo di sëriñ Abdou Khoule Mbay ak soxna Càlla Mbay sëriñ bi wax ne nit day amut ci àdduna lu gën a rëy dem yawmal xiyaam bàyyi fi doom ju baax joo xam ne mi ngi lay defal ci ay ñaan loo xam ne soo toogoon yow sa bopp sax doo mën a fàggul sa bopp lu tol noonu nee na kenn amut résultat bu gën a baax boobu ci jaboot ju dem yawmal xiyaam te yollu yàlla defal na ko sëriñ Abdou Khoule nee na loolu mu ko defal nag askanu Mbakol yaa yaatu na Longoor dëkk bu rëy la waaye bu yaatu la bu yàgg waaye day sëriñ Abdou Khoule Mbaye mii nga xam ne moom lañ wooteel bis bi nee na maama ngi fi woon ñu di ko wax Mor Soxna Fall Sill yeneeni maama ngi fi yoo xam ne lépp lum am ci ñoom la ko jëlee ay baayam a ngi fi woon waaye wóor na ko ne nii ko sëñ Touba nangule ba fay ko ginnaawam mu am mbooloo mu tol nii ci Longhor di ko woote bisam ñu di ko ci tudd nee na wóor na ko ne ñooñu tuyaa luñ mën a amit bis bi moom sëñ Abdou Khoule ëppalee na leen ko ndax bis la boo xam ne su dajee li fi daje ci sëti sëñ Touba di fi daje ci ay jullit di fi daje ci ay wëlëre te ñoom ñëpp yàlla ak jëmmi sëriñ Seex andi leen fi nee na wóor na ko ne liggéeyub sëñ Abdou Khoule la ak liggéeyub soxna Thialla te loolu jote wut la ko yàllay faya ëllëg dara day wan mbooloo mi ne fii ci àdduna rek ne boo bàyyee sa bopp ak yàlla saa yoo fi jógee yàlla mooy ñëw nekkal la te nattabli wutoon ne sëñ Abdou Khoule Mbaye bàyyi woon na boppam ak yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba nee na loolu moo ko may bis bu mel nii mu àndoon ak jàmbaar jum daan liggéeyal mu di Cheikh Mouhamadul maamun mi nga xam ne Serigne Touba ci boppam moo wax ne Serigne Modou Mamoun yàlla miy bind dooma aadama te di ko boole ak aw yiw ak bàkkaar nee na bindalu ko xalima gu koy bindal bàkkaar musta am bàkkaar nee na kooka yàlla boole woon ak sëriñ Abdou Khoule mbay nee na mu di ko liggéeyal lu ko jiitu ca ay maamam maam Ibra mbay ca maam Cheikh Anta sun masaa di noddu gaaya daal di sikkar ba siidi Anta génn ñu door a kàbbar wax nañ ne keroog ba ñuy sanc Daaru Salaam sëriñ Touba Modou Matar Mbaye rek la àndaloon di maamam. Modou Matar Mbaye Serigne Touba dafa rëdd jàkka ji jiite fa tisbaar na ko noddal mu nodd takkusaan jot Serigne Touba noddal boppam ne Modou Matar Mbaye jiiteel timis jot sëñ Touba ne Modou Matar mbay noddal mu noddu sëñ Touba jiite gee jot Serigne Touba nodd ne Modou Matar mbay jiiteel mu jiite fajar jot Modou Matar mbay noddu Serigne Touba jiite na ko Modou Matar seen jàkkaangoog kookee nag ku am cër bu tol noonu ci moom ci Serigne Touba kere ba Cheikhul Khadim di dem ci géej gi nee na wóor na ko ne fii ci Longhor la yónnee woon téere boo xam ne dana bu ma ci jotee askanu Longoor bu ëllëgee danañ xam ne am nañ ku mat wëllëre wu mat wëllëre loolee leen sëñ Touba defaloon nag mu jaar ci maam Cheikh jaar ci sëñ Modou Mamoun ba agsi ci Serigne Modou Rokhaya Serigne Modou Rokhaya moom da ko da koo yàkkali yaatal ko dolliwaat ko waaye ci kum ko dollee moo di Serigne Cheikh Thialla Mbaye mii di Serigne Cheikh ndax kenn naat naattabli ne maam Abdou Khoule day bi yàlla dogalee mu wéradi Serigne Modou Rokhaya moo yónnee si fi jël si lu ko. téye ko daaru salaam ay weer bis bi mu koy yewwi da ko ne xanaa da ngay dem ci ñëw bis boobee mu tàggoo oto bi sëñ Modou Rokhaya moo ko andi ba mu tegee loxoom ci ab lalam la génn àdduna nga xam ne oto bi ko doon yóbbu delluwaatul daaru salaam nee na boobee nag la sëñ Modou Rokhaya jël sëriñ Cheikh mii def ko muy doomam def ko muy ab def ko muy doomi xolam di dereetam mu wax ne lépp loo xam ne liggéeyum nday may na la ko di soxna Thialla aku njàmbaaram lépp loo xam ne góorgóorlu baay may na la ko li ci des sa joomi bopp moo la koy may na nga xam ne foo bëgg a yem rek yaa fa yemale sa bopp waaye am nga wéeruwaay am nga baay am nga sëriñ te danaa la féete ci ñetti yooyu yëpp ba àgg ci boppam waxal ko boppam sëriñ bi wax ne sëriñ Modou Rokhaya wax ko ne ko may naa la sama bopp ba loo ci ñaan yàlla am ko li ma la mayee sax mooy ku aajoom norta faju am xelam du dem ci yow waaye ku am xelam dem ci yow rek yàlla dana faj aajoom ki ko waxoon loolu nag doonut ku doon lambut mu di sëriñ Modou Rokhaya bu lim bokk ak Serigne Touba amul ku yàlla bind ko ko bokk ak Serigne Touba ndax man na ne man de maay taawub Serigne Modou Mamoun Serigne Modou Mamoun di taawub maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta di doomi sëñ Mbacke Mor Anta Sali sëñ Mbacke Mor Anta Sali di doomi maam Balla Aysa maam Balla Aysa di doomi maam Maharam waaye bu Serigne Modou Rokhaya waxee ne maay taawub sëñ Modou Mamoun danaan doomi soxna Faati mbakke la soxna Faati Mbacke doomi Ibra Kandi la Ibra Kandi doomi Ibrahima Awañang la Ibrahima Awañang doomi maam Maharam la. waaye mën naa waxal moom ci boppam ne man de maay taawub sëñ Modou Mamoun sëñ Modou Mamoun di doomi soxna Fati Buri soxna Fati Buri doomi soxna Fati Balla Suxra mam Balla ay sa jur ko mam ma aram jur ko kon amul menn maamam mu du delluwaat ci maam Cheikh waaye du delluwaat ci maam Maharam waaye sëñ Modou Rokhaya day waxaat ne maay doomi Rokhaya Touré Aminta Mbacke jur ko Ibra jur ko Ibrahima Awañong jur ko mam Maharam jur ko kon lépp lu ñuy wut ci mam Maharam lam waxoon ne man sëñ Tuubaa bu dee pël may pël bu dee tukulóor may tukulóor lu mu mën a doon moom laay doon ndax dereetam laa yor meenam laa yor kon kooku lu mu bëgg ci sëñ Tuubaa yàlla war na ko mën a joxal waaye yëmut ci juddu bu rafet daa yor ci liggéeyal sëñ Tuubaa li tax li mu wax ci Serigne Cheikh Mbaye yàlla dogal ko bi mu ganee àdduna jàng alxuraan ba mokkal ko Serigne Touba daf ko jël sëñ Moudou mun daf ko jël jox ko Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ne ko man kat sa ba sa maam damaa jébbaloon sëñ Touba ba mu def ci man bane ma amoo xalimak ak bàkkaar yow nag fekke woo sëñ Touba sëñ Muudu Moustapha nga fekkeel jox naa la sëñ Muudu Moustapha muy sam sëñ Touba lépp lu ma amoon sëñ Touba na nga ko ci wut sëñ Muudu Roxaya dem ànd ak sëñ Muudu Moustapha ca Tindo di ànd moom ca Taïf ànd ak moom ca Bayda ànd ak moom ci Daaru Nahim ànd ak moom ci dëkkam yëpp ba sëñ Muudu Moustapha xëy woote na leen kaay leen yóbbul ma taawub Muudu Maamun bi mu dem Daaru Salaam su ngeen demee ngeen wax baayam na ko moom day jaanam wàcc na ndax xam na ne maay sëñ mu jur doom yët na ko moom mi mu fi andi woon di sëñ Modou Rox itam jaanam wàcc na xam na li ko fi baayam andi woon te wut na ko ba am ko man Modou Moustapha maa des sama njëmbata nag bu doon a bant bu dee ma jëmbat ko noor ku yàlla bind munta tee mu jebbi rawatina bi muy doon nit sama njëmbati ci Daaru Salaam ku suuxoon mu jebbi ku suuxatul mu jebbi nee na kookee nag cër boobu mu am ci sëñ Modou Moustapha am ko ci sëñ Modou am ko ci maam Cheikh am ko ci sëñ Touba moo jëfandikoo coobaram ci sëriñ Cheikh Thialla Mbaye mii ba ne ko may naa la sama jëmm ji loo ci dogu yàlla may la loola sëriñ bi noona nag loolee ku sëñ bi mayoon moom aggut foofa waaye nee na tibb na ca la sëñ Modou Mamoun amoon tibb ca la sëñ Modou Rokhaya amoon tibb ca la maam Cheikh Anta amoon def ko ci jëmmi sëñ Cheikh mbay ku ko seen sa aajo faju nee na sëñ bi da ko ne may naa la sama bopp la loo ci ñaan yàlla def ko waaye moom nee na daf ko dogul ku séenati jëmmam yàlla faj sa aajo nee na kon nee na mi ngi lay sant di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na yàlla musal la yàlla na yàlla musal sang njaboot nee na mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ne yaa leen jaboote tan ja ay soxna tàmbalee ko ci soxna caan soxna umul ak ci Baye Fallu boppa bii di soxna Absa Sall nga xam ne ñoom kat yàlla da leen a booleeg yow ñu takk seeni laxasaay di góorgóorlu di wut ngërëmul yàlla la leen ko yàllay faye nag ci ak njaboot la leen ko mën a faye yàlla na yàlla defal njaboot gu barkeel goo xam ni kenn ku nekk am sëñ Seex Mbay lay doon ci am wet lu mu dogu ci baatin yàlla fekk ko ca waaye lu bëgg ci saayir yàlla defal ko loola nee na mi ngi leen koy sant bu baax di leen ko gërëm nee na di beralaat ak cant bu baax mbooleem bokk yi di ko teg sa loxo yow Baye Laay nga tegal ko ci loxol sëñ Modou Mbaye ndax nee na sëriñ Seex mooy cërub sëñ Modou Roqaya ci Longoor te moom mii nee na fas na ko yéenee tàmbali sëñ musa nee na yëg na kër gii ni mu toll ndax fii mu toog xam na ne fi la baraagub seng ba nekkoon sëriñ Modou Roqaya yabal ko fi muy ñetti baraag ñetti néeg mu fekk fi sëriñ Seex mbay nee na booba kër gi melagut nii waaye bu demee ba jàkkaarloog dañ gaan ko lee mooy Daaru Salaam di sa kërug bopp nee na na ngeen yëg ne kër gi dana ñëw di fi fanaan ay guddi ba ku ko gisati boole ko ci waa Longhor ndax daa bokk ci waa Longhor nee na bëgg na jaxasoo ak yéen ba ko miin Longhor miin tundu Mbakol da ko miin ci kër sëñ Cheikh mbay da nga ko miin ci néegam bii ba buñ laajatee sëñ bi ñu ne ma nga taw ma nga ci këram nga ca longoor nee na loolu fas na ko yéene ñaan ko yàlla te dana ko def ndax xam na li tax nga def ko nee na defar nga kër gi waaye beral nga ci sëñ Modou Rokhaya ab ruq defar nga kër gi waaye moom mi sagal nga ko ci ba def ci bâtiment boo xam ne doo ca fanaan say doom duñ ca fanaan suñ génnee nga tëj ko nee na li nga def lépp teg na ci bëtam xam na li tax nga def ko waaye maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na la yàlla fayal boppam nee na mi ngi sant bokk yëpp di sant bu baax nag nee na mbooleem xarit yi xam nañu bàyyi koo Ndakaaru xam nañu bàyyi koo fu sori Touba ak li ko war lépp kenn ku ci nekk yàlla ak jëmmi bis bi moo la tax a ñëw waaye di jiitale cant googu ci Serigne Mbacke Jaxate nee na di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla doole delloo ci sagoom yal ko yàlla doole ak wér ba nii mu yàgg a taxawoo alxuraan ji mu ànd ak Serigne Cheikh di ko taxawu ay at yu baree baree bari yu ak lool waaye nee na cant googu da koy teg ci loxol Serigne Cheikh Seck Serigne Ndiol ak sëñ seex Seck ndax yéen nee na bu ñuy wut wëlëre yéen a taxoon ñuy wax wëlëre bu ñuy wut xarit yéen a taxoon ñuy wax xarit waaye bu ñuy wut àndandoo yéen a taxoon ñuy wax àndandoo seen digganteeg Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar rafet na lool waaye jàpp ngeen seen digganteeg Serigne Cheikh ba mel ne yéen ak Serigne Cheikh yéen a bokk ndey ak baay nee na wóor na ko ne ku daggoon ci dereti Serigne Cheikh seen deret ay génn waaye ku daggoon ci seen deret dereti Serigne Cheikh ay génn waaye na ngeen ne kóllëre googu Serigne bi nee seen ñaari loxo yi bu ngeen ko boolee loxoom la ciy boole téye ko te bala koo bàyyi daa gis Serigne Touba teg ko ci na ngeen xam ne jàpp fasante ngeen nag ku mat kóllëre ci dana ko téye bu Serigne Cheikh sonnee dana ko jàpp bu sonnut dana ko jàpp dana leen boole jàpp ba teg ko ci loxol Serigne Touba nee na sedd na ci yéen bi ci nee na mi ngi wëlbatiku di sant sët yi di daayira nooru daarey ni ak daayira xidmatul xadim muy góor ñi ak jigéen ñi ñuy sëti sëñ Abdou Xulle sëriñ bi nee na yéen dafa bokk ak yéen lépp ngeen di ak njabootam nee na yàlla dofal ngeen teg ci yoon woo xam ne dal na xelum seen waajur waaye dal na am xelam moom mi ndax bu gisoon sëriñ seex tak ak yam samp aw xelam te gisul njaboot gi topp ci ginnaawam nee na dana am ak jaaxle waaye bi mu gisee nag ngeen takk seen laxasaay topp ci ginnaawam la ko wóor ne fu seen baay taxaw bu ëllëgee da ngeen fa taxaw kon nag nee na lim leen di ñaanal yal leen yàlla def ay mag te def leen mag ñu bari wërsëg kenn ku ne kër ga nga nekk di fa di fa wut ngërëmul yàlla yal na la ko fa yàlla defal te jafal la fa njaboot goo xamante ne bii njaboot gu barkeel lay doon bu dee ci wàllu gone yu góor yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen ñaanal nee na nag lii da leen koy tibbal ndax xam na ne maam Cheikh bu ñuy wax dërëm ak ngërëm moo ko yore milliardaires yi borom gaawaan yi nee na ci wàllu ngoor ëppale daa bëgg daal buy ñëwati huit huit yi gaare dëkk bi ba fees ko dell yéen ñëpp kenn ku ne mën na sëñ Cheikh Mbaye jox naa la gëléem jox naa lay nag nee na loolu la leen fàggu ci seen siyaara bii te nee na ñaan na ko sëñ Tuubaa te rafet na njort loolu na te dana leen ko defal nee nag bi ci des day beral ak cant akuk ñaan ginnaaw bu mu santee soxna umul ak soxna caat waaye soxna Absa sëriñ bi nee na bu la santut ci sa biir bokk yi ñaanalu la ci sa biir bokk yi day mel na li nga ko defal gisu ko ndax du du ko nëbb ba dem Daaru Salaam di la fa sant wala mu koy nëbb di la ko sant fii dala koy sant ci ñii nga bokkal sëñ Seex àndandoo ak ñoom di liggéey mu wan leen ne yow kat yaa ngi ci yoon woo xamante ne bii li ngay def dana leen seereel cant gi ndax nit boo koy sant danga ko koy ba ci ay bokkam nga sant ko fa. nee na sa jëf ji gis na ko te wóor na ko ne njësal taxul nga def ko wóor na ko ne man taxul nga def ko bëgg lu baax rek moo tax def ko bam fi tàmbalee ñëw ba fi ne. bis bu yàlla sàkk warlu nga ne ko li ngay jëfandikoo maa koy togg nee na loolu yàlla defaloon na la ci xaas ju rëy te wóor na ko ne xaas jooju day yokk ndax saa yu ma saa noppi dana ko yanu yët ko sëñ Sidi Muxtaar léeg-léeg mu ne ko maa ngi Kër nganna léeg-léeg mu ne ko maa ngi Daaru Manaan léeg-léeg mu ne ko maa ngi Touba kon tàgg nga ba tàyyi ñëw ci ngan gi sëriñ bi de bala baa jëfandikoo dañ cee yët sëñ Touba ba noppi dem fekk ko foofu jox ko sëñ Touba Cheikh Sidi bis bu njëkkum mun Muntaxa noonu la ko fabe yan ko sëñ Muntaxa na ko damaa demoon ci sa kër gee ca Longoor gane ji woon fa sëñ Cheikh Anta Mbay lii nag ab Baay Faal la moom toog di ma ko jox te xam naa ne li mu bëgg ci sëñ Tuubaa nekk moo tax ma bëgg nga fajal ma aajoom kon nag yow sam xel war naa dal nee na mi ngi lay sant di la ñaanal yàlla ci njaboot gi yàlla la ci yàlla jàppaleel boppam ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da toog ñu di ko def cantuk gone yi nag nga xam ne ñooy njabootuk sëñ Cheikh ginnaaw bu berelee sëñ soxna ab sax cant ni mu ma ko waxoon dafa tegaloo te xaw ma dinaa ko mëneem noonu waaye lu ci jàll rek la rëcc ngeen xam ne mën a waaye sëñ bi dama ko waxoon benn par benn nee na li tàmbalee ci sëñ bàcc ak seex mu mustahin ak seeni rak sëñ Modou ab Abdou ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk soog leen a ñaanal lim leen di dénk moo di ku yàlla jox wayjur wu mel nii nee na waratoo bëgg ci àdduna dara lu weesu ngërëmam nee na mënu leen a am ci àdduna lu gën ngërëmam ndax lii mu am kat ak loo mayu ko ko ngërëmul baayam moo ko ko may te ba muy wut ngërëmul baayam wut ga lu la kon nag yéen seen bàyyi ngi nii ci jamono yomb na bu leen bëgg ci àdduna lenn lu weesu mu ne leen jaajëf su ne leen jaajëf fu ngeen tàllalti seen loxo suñu borom yombalal leen loola kon nee na ab dénkaane la ci yéen moom yéen ak seen i rakk yëpp bi ci des nag bi na mbooleem lu ngeen di wuti ak fu mën a ne ci àdduna mi ngeen bay ci seen ëttub baay bii kon nag ngërëmam rek moo leen mën a may li ngeen bëgg lépp kon na ngeen sàkku ngërëmam bi ci des nee na mu nag mu soog nag wëlbatiku di leen ñaanal ndax nee na bu leen ñaanalee boppam la ñaanal ndax yéen a dig njabootam te bu ëllëgi sibiree yéen a fii des kon nag lim leen di ñaanal mooy lépp lu seen baay man ba di ko def ci jamono jii yàlla na suñu borom defal leen yéen ñëpp kenn ku nekk man lu ko fukk ci ndax su ngeen ko mënee rek yoon wi jëm kanam bis bii nag sëriñ bi nee na daa bëgg ngeen xam ne bis la boo xam ne li feeg màggaluk Tuubaa ngi am màggaluk Daaru Salaam di am màggaluk sëñ Abdou Khoulé di am kon nag béye boo ngeen góorgóorlu ci ndax doonu tut bis buy fay bis buy jëm kanam ba faww la lu ci waay def nag ak sa góorgóorlu fu ci waay yem ren bu déwénee boo yokkuwut ne la wóone sa pas-pas a def ci bis bi waaye sëriñ bi nee na moom bis bi attan na lu ne liñ fi jàng ci alxuraan attan na ko liñ fi def salaatu ala nabi attan na ko liñ fi def ci ay bernde attan na ko liñ fi jokk ak bokk attan na ko li fi sëti sëñ Tuubaa yi def attan na ko waaye nee na moom ci cërug boppam bi mu tibbee Daaru Salaam àndaale ko nee na wóor na ko ne lu waay fas ci bis bi boo delloo sa kër da ci teg sa bët boo ci tegut sa bët rek ci yow la waaye loolu moom fàgguwaale na ko kon nee na nee na firnde yi li muy wax it ko xool ci kër gi rek nii nga xam ne wóor nañu ne kër gi yokkoo na ni bu ngeen déggalee sëñ Cheikh mii ca topp ci moom nee na woo noonu rek la seen mbir di yokkoo bi nu fi njëkkee ñëw booba ay baraaga nekkoon fii ma toog tey jii ku xool kër gi. xam ne yokku na ku xool mbooloo mi xam ne bis bi yokku na bis boo xam ne nag boo ca defee mu yokku boo ca defut mu yokku dangay fexe ba def ca ndax la ca sëñ bi séddale kenn du la ca ëppale sëñ Seex moom li sëriñ bi def ci moom def na ko ci moom ba noppi ku fi ñëw bu la ñaanalee nga am li nga bëgg ku fi ñëwut itam du tee moom muy dem koo xam ne nag sëriñ bi da koo sol ba mu fees mel na bërigo boo teg ci mbaltan boo puusee mu dem boo puusul mu dem saye boo nga puus jariñu ci am ci ngërëm njabootug boppam gi li ko dale ci sëñ bàcc sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaan bis bii lépp lu ci sëriñ seex war a tegoo nee na ngeen sasoo ko fu leen mën a fekk ci àdduna sëriñ seex du ko nangu sax waaye danaa leen ko ko ñaanal ndax lu bëgg taalibeem yi ak wëllëreem yi fii ba Ndakaaru Kaolack Thiès Touba fu am na fa yoo xam ne kenn ku ne boo sañoon li sëriñ Seex di def ci bis bi nga def ko ci loolu noonu yi rek la sëñ Tuubaa di faye kon nag yéen njaboot gi sëriñ bi ne mi ngi leen di ñaanal ngeen am wërsëg woo xam ne balaa bis bee delsi déwén ngeen man koo defal seen bopp bu ngeen déggee kàddu yi nag fu ngeen mën a ne na kenn ku ne daal di sasu fexe ba sa morom du la man ci jataay bi bu ngeen defut lépp it nag li ngeen di wuti lépp mi ngi ci sëñ Seex Mbay mii bu ngeen fi toogee lépp fekk leen fi ay jàmbur a ngi fi ñëw di fi jariñu di nekk ay milliardaire kon nag rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a dig njabootam bu ngeen bëggee wér te bëgg ci milliar yi na ngeen geestu Serigne seex mii te xam ne ngërëm képp moo ko wër kon loolu ma wax rek képp ko aajoom narta faju doo jóg mukk jëm si ci sëñ Cheikh bu sam xel demee ci moom rek aajoom faju man de maa ngi ànd ak moom di liggéeyal sëñ Touba waaye fu ma geestoo rek mu di ma bëgg a romb koo xam ne nag dalaa doxale diggam ak sëriñ bi te boo taxawee rek mu romb la dem kooku nag faaw noo mën a def danga waaxu yokk say jéego bu baax a baax waaye lépp lu may liggéeyal sëñ Touba. man na maa wax ne sëñ Seexa ci man kon nag maa ngi ñaan mu yokku te wér gi yokku te man gi yokku taalibe yëpp lépp lu ñu fas ba andi ko fii yàlla na ko sëriñ Tuubaa def nii ñu ko bëggee ñu dajawaat fi na gën te kenn bañ a manqué ci daja bi te ñëpp ñëpp nag seen aajo faju ñu yokku ba yëg na yokku nañ suñ borom mën na ko jërë ngeen jëf.